tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale li nu tàmbale woon muy alhimma al aliya muy yitte ju kawe te uh, ñu waxoon ne Sëriñ Tuubaa mi ngi taxawal yoonu murid nag ci yitte ju kawe muy fekk li ñëpp bëgg yow nga bëgg lu ko ëpp ndax yàlla ay mayam ak i xéewalam yemut fenn moo tax Sëriñ Tuubaa moom bi gisee ne tamit al iradatul amma dafa am wala iradatul xaasa moom masta jaar ci moom moom dafa moom moom dafa dafa dal di jubale rek al iradatul xaasa muy e, murit goo xam ne nii gu gu beru la muy bëgg lu ëpp li bindeef yi bëgg ci yàlla te loolu lu mën a nekk la moo tax Cheikh Mamadou Fadal dafa daan wax ne koo seen mooy dox rek ab murit la xanaa kay lam muritu jëm loola moo mat a laaj lam bëgg jëm te loolu alxuraan moo ko wax minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu alaaxira moo tax sëriñ tubaa wax nañ ne Cheikh Saxdu Abi radiyallahu anhu mas naa gis ci guddi suñu borom tabaaraka wa taala wan ko eh, doomu aadama yi ñu xaaj leen ñaari xaaj mu laaj benn xaaj bi ñoo ñan ñu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne ni ñoom àdduna rek moo leen jiiteel mu laaj beneen xaaj bi ñu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom àllaaxira rek leen yitteel muy àjjana texe ëllëg mu gis kuy xuus jaar ci seen diggante di waaxuy wéy mu ne waa kee moom lu mu bëgg kee moom mooy kan ñu ne ko kee mooy xaadimu rasul mu ne waa moom lu mu bëgg ñu ne ko moom de li ñaari kuréel yi bëgg yépp li mu bëgg ko ëpp mu ne moom lu mu bëgg ñu ne ko maqaamal ubudiyya la bëgg doon muy maqaamul ubudiya nag mooy maqaama moo xam ne nii al yetu dañoo wax ne mbindeef lu gën a jege yàlla rek di gën di doon ab jaamam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo gën a kawe ñëpp guddi gi mi ràññaani sax suñu borom tabaraka wa taala ab jaam la ko fa tuddee subhaanallahi si asra bi abdihi layla min al masjid min al masjid al haram moo tax gaa yi yàlla yi bëgguñu doon ci yàlla lu dul nekk as njaamam loolu mooy maqaamam mi gën a kawe Cheikh Abdul Wahab Ash-Shahrani dafa gént bis wala boog muy janeer cër yi gaa yi yàlla yi am dem ba nar a xeeb ab cëram am lu ñëw dee ko ne ko yow Abdul Wahab wala yàlla ubbi doon kiiraay yi nga gis àtte yëpp lu ne fa muy jógee ak fa mu jëm te nangu loolu la sag njaamit it du la jariñ dara ci la jógee moom it di ñaan sunu borom defal ko maqaamal ubudiyya léegi nag gént ko bi ko seex Saxta Abi géntee ñu ne ko waaye nag maqaama mu doon wut am na ko bis ni ki tey mu daal di xëy bind leetar yónnee ko doom ju ñuy wax Cheikh sëriñ tubaa itam bind leetar yónnee ko Cheikh Saxdu ñaari leetar yi juyaloo sëriñ tubaa bi mu ubbee leetar bi Cheikh Saxdu Abi bind te yónnee ko doomam mu gis Cheikh Cheikh Saxdu Abi bind ca gannaaw bu ko siyaaree ndokkeel ko ne ko dañ maa wan bi sa maqaam moo doon wut ñu ne ma am nga ko maa la ci ndokkeel leetar bi see bi sëriñ bi bind Cheikh Saxdu Abi it ba mu ko ubbee fekk sëriñ tubaa bind ci ne ko yow Cheikh Saxdu Abi ndokkeel ko siyaaree ko ci li mu doon sëtu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag la doon am maqaam mu ma doon am mu ma doon wut kat ñu xamal ma biig ne ma am naa ko ma la ko yëgal loolu mooy maqaamal ubudiya kon sëñ Tuubaa lim bëgg ak li mbindeef yi bëgg bokkul naka jekk loolu nag la muy tekk rek mooy alhimma al aaliya te mooy yitte kawe kon képp koo xam ne ni sëriñ Tuubaa mooy sa royukaay war nga koo roy ca loola muy bëgg lu rëy ci yàlla buñ gisee sëriñ Tuubaa tamit jomam ak euh, ngorom ak yiteem ak pastéefam pastéefam ak yiteem ju kawe tax na ñi ko fi jiitu ni mu baree ci zaahir ak ni mu yàgg yàggadee ci jamono ci zaahir mu farlu am yitte ju kawe ba kenn jiituwu ko ci boromam loolu yitte ju kawe moo ko ko may dégg ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu soree ci zaahir te bi mu ñëwee dafa wax ne bu fi fekkutoon benn jeexiite yonent bi it mu leer ko ne ko ci suuf si laraan dox asamaan si moo ko daan tiim li muy wut ci yonent bi yitteem ju kawe dana ko ko may loolu mooy al imma al aliya yitte ju kawe diggam ak saxaaba yi ni mu soree waaye joomam tax mu nawloo leen dem ba bokk ci ñoom dem ba kenn jiituwu ko ci yonante bi sallallahu alayhi mu waxal ko boppam it shahida lillah bi anni waahidu min ahli badrin maa nahaa ni jaahidu loola yitte ju kawe moo ko may mu bokk ci ahlu badar alquran ba mu wàccee ba tey ba ni sëriñ bi ñëw ci saaxir ni mu soree ak li ci jullit ñi daj mu ñëw yitteem ju kawe tax mu liggéeyal ci boromam lu tax boromam may ko ko far loola yitteem ju kawe la te mu bind ko man la kañil quraan tam lii kan yadu loola yitte ju kawe moo ko may ah ñi doon tagg yonante bi sallallahu alayhi muy Kaab ak Hassan ibnu Saabit ak taggkat yëpp mu ñëw te Sëñ Tuubaa li muy def bu ñëwee dalay roy def la nawle ba mu yàgg mu romb la noonu lay def ci ay taggiin moo tax ba mu ñëwee la xam ne ah képp koo xam ne ak mbaax a ngi ci yow kat na xam ne tagg yonante bi sallallahu alayhi mooy tono gi ëpp baana li kulli man lahu salaahu annam tidaaxal muntaxaa falaahu di sóobu nag ba àgg ci foo xam ne nii kat la ca ñooña amoon am na ko ca ba weesu leen ba bindal ko boppam lu ci nekk mu bind ko daldi wax suñu borom kat yow ñoddil nga ma lu ma dindil bépp tër waaye mujj naa nag liggéeyal gi ma liggéey yonante bi sallallahu alayhi ma mel ci ni Anas ibnu waxaat ne suñu borom tabaaraka wa taala yaa ma may ay xéewal ba doon loo ma Hassan ibnu Saabit ci tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am fu mu waxee sax ne jéggi naa leen faf dem naa ba nekk ci seen kanam nekkatuñ ci sama kanawaay ci sama gannaaw lañ nekk lii xuttama sax sa an yeddanas surtout xadimal Mustafa misla anas malëktani wa xuttali ixsaana wa ristu fi madihi nabi xassaana wax na am na fu wax sax wa fi madihi jaawastu kahban wa